billaahi wallaahi tallaahi fii laay waxee ndax fii sama dëkk baay la samay dëkk mbokk taalibe la fii mooy kër yoro dëkk alaaji mooma seen su fekkee na man aji saar nettalewuma ne ma lii mu nekk ay fen la yàlla bu ma àgg kaw di ngeen kenn mënu maa rey kenn mënu maa ba may dawal sama oto man kenn maa jógee Dakar samay àndandoo ñoo ëpp doole tuuf nguur damaa bëgg ñu tënku ci dëgg te xam ne ñun ay nitu daara lañ am ci kenn koo xam ne nee na su fekkee xaalis nga bëgg kii xaalis moo tax muy wax bëgg a dóor barke Cheikh Ibrahima Niass barki démb yàggul dara hôtel Méridien lañ ma tegal cent millions du ma tudd ñooñu cent millions lañ ma tegal soxla wu ko ndax man duma ma doomu sëriñ boo xam ne ba ma juddoo ba léegi musuma laaja at maa ngi koy wax ci kaw te sama vidéo yëpp chaque jour moo musuma tukki fenn laay tukki mooy Nigéria gàmmu la quatre jours la quatre jours la